asalaamaaleykum mbokku internet yi rawatina Africa Global Express TV ah, tey nag ñoo ngi Parcelles Assainies unité 14 waa gox bi yeewu fekk leen ñu tegal leen fi lii bu tooy xepp ñu di ko ñaawlu waaye ak lu mu ci mënta doon dinañ dénk askan wi suñu micro ku ci nekk wax ci sa xalaat noo gisee mbir mi. sant yàlla alhamdulilah. man Cheikhouna ah, naa Wat nga gisee mbir mi nga xam ni vraiment kenn rafetlu ko doom ju tooy xepp nga ko sànni ko fa lañ ko tegal fekke ko. waaw bi ñu xëyee comme euh, fii la ñuy teg mbali bi fi ñu taxaw nii. Mhm. Euh, benn buujumaan ci kàddu ñuy baal ñu ko. mooy gars yi wër si morso yi kii wóoli mhm. moo doon ubbi saag yi. ba far yem ci lu ñu naqari ñun ñëpp tey. ndax lu mel ni doom tey nga xam ne am na ñu ko tële. wax dëgg yàlla ñëw fekk fii ci saako yi ci la police ñëw def constat bi euh, sapeur ci la ko sapeur yi yóbbu waaw ànd a buuj maan bi yóbbu ko depuis boobu léegi nag ñu ne toog fii lañ ko sànni fii nii waaw ñu ko lëma ci ñu ñu koy wax fekkee wu mais ñaawlu nañ ko torop loolu moom benn xale bu jigéen bu ko def loolu moom ñaaw na kenn waru koo def ndax nit ñaa ngi fii ay ay ay ñaar fukki doom fu ne ñu ñaan fa fu ne ñu daw am yàlla may leen ko léegi yàlla may la ko nag nga dem di ko rey loolu ñaaw na torop li la olof Njaay di wax ñu mën a kott amuñu mbaam ñaaw na torop su ko def moom ah yal na ko yàlla nit yal na ko yàlla feeñal def na lu ñaaw loo xamante ne bakkan nga rey ko du mën a nëbbu noonu xëy na dina neex fii mais bu ko yàlla jàppee bu ñu xamoon àllaaxira ku ku rey bakkan safara nga jëm kon du kenn du ko def. ñaaw na ndax doom ni mu mel. ak nu man ak noko man tak amé yow bi ngay dem ba di ko sabablu yow waron nga xalaat lolu awa lolu di am lolu waron nga ko xalaat sa bop bu fekke ne nga jaaru fi nga wara a jaarit ba yalla duggal la fo xam fi fii bu na nit ko yalla sabab la ci def na ci dom dom ji juddu nga sànni ko loolu moom la ko gëna ñaaw amut ndax ku nekk rek bakkan ku nekk rek sa bop ngoy sété ndax mom ci lire la ba mag ba mën a am ba mën a am jëkkër ba am doom am na ñoo xam ne ñii tey ñi ngi dem di seet ay doom te doom yàllaa koy maye bu yàlla tuddee ne danga am doom da am doom kon nag ki nga xam ne ki am na doom moom daanaka yow bu fekkee ne yow bëggoo ko it waroon ngaa génn sax dem ci doomu aadama am na ñoo xam ne ñu ngi ne ko siiw nga jox leen ko ñu téye ko waaye bakkan dafa foor loolu mu def nag moom ñëpp ko ñaawul tey ko koy gis muy jigéen rek sa yaram daw na. lan ngay xelal yi nga xam ne amaguñu borom kër. amaguñu borom kër niñ muñ ba yàlla may leen borom kër ñu sëy ci sunna si yàlla ak farasi Muhammad bu la ci yàlla maye doom nga téye sa doom nga xam ne ne kenn ku nekk say famille jaaroon say ndey jaar sa ñëpp jaar fi nga jaar fi waaye nag nit ki nag bu fekkee ne bëgg ngaa jaar foo xam ne fii say famille jaaruñu ci nga am ci loo ciy de ne xam nga ne kooku tey jii bu fekkoon ne mi ngi sëy xëy na loolu du ko def waaye nag xëy na dafa jaarul ci yoon. ëmb juróom-ñeenti weer rek dafa métti. kon donc man yaakaaroon naa même bu ko doon def sax. nga maye ko ndax am na ñoo xam ne soxla nañ ko te mënuñu ko am. donc euh, yaakaar naa ni. franchement ñun ñëpp ñu ngi koy métlu rawatina parcelle bi d'unité 18 waaw. Ah, doom ji góor la wala jigéen. non franchement nag loolu dese na maa leer. Mhm. waaw ndax ci mbuus la ko def taxu ko mhm. waaw. taxawoo ba xam mi ngi nooy wala nooyul. non même pas yooyu moom peut-être sapeur loolu moo leen mën a lu leer daal. Mhm. waaw mais ñun moom ñu ngi koy métlu franchement parler. ñan ñoo moo fi ñëwoon jël ko yóbbu ko. ñu merci beaucoup jërëjëf. rafetlu ma ko te dafa ruslu en tant que jigéen nga ëmb neuf mois sa biir bi yàlla mënoon na ko rey mënoon na la rey yàlla dogal nga am doom amoo loo ciy séentu lu dul nga di ko def ci mbalit loolu du war ma sax nga dem sax maye xale bi koo ko mënta jox sax jafewul mais nga di ko def ci mbuus di ko teg si mbalit loolu maara deytaal bu fekkoon yow sa yaayam noonu la ko defoon dina ñëw ci àddina dafa ruslu bu dee ay xale yu jigéen ñoo koy def dañu seetaat seen bopp jamono bi nag dafa tas yàqu-yàqu goo xam ne maa la day tal man di wax ak yow samay doom ay doom nit ñi xale yi dañ leen war di yaraat xale yi dañ leen war di woo di wax ak ñoom ñu bàyyi jiital àdduna xaalis ah ñu yar leen ñu yem bañ andi bëgg-bëgg gis nga bëgg-bëgg yu mooy andi lii lii nag ki ko def dama yaakaar ne xoolul diggante moom ak boroomam xoolu ko su ko xooloon tuuti kon dana arrière ndax doom bi indiwu fi boppam moom moo def bi indi bopp amul lu mu ciy xool lu dul jël di ko sànni mbal xam nga ne loolu ñaaw ne dafa ruslu dafa gàccelu sax man ñemewu ma ko dem xool xale yu jigéen jigéen moom def yàlla def ko suturaal doomu aadama yàlla def ko suturaal surtout muuminu yàlla bu mu xam ne conséquence yi lu mu koy jural ëllëg rafetul ñaaw na xale jigéen nañu deltu ginnaaw jigéen ñi nañu deltu ginnaaw. voilà mbokk yeeg xarit yi gis nga ñoo ko gisandoo xanaa di leen jox di daja ba beneen yoone bu neexee suñu borom.